astral dafay am solo loolu alors ci noonu nag lay dalale ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal plateau bi ma tàmbale ko ci Luisa Luisa nuyu naa la dafay asma di nuyu Nana Pa Assane ak Biggi di nuyu ñi nga xamante ne tamit ñoo yeewu suba teel bi di ñu seetaan ci seeni émission suba <laughs> ah, merci beaucoup. Ah, merci bon. Oh. merci. tey lan nga ñu fas yéene waxtaanee waaye dafa fekk dafa mel ni Nana dina si gis boppam bu baax a baax alors Biggi naka mu. ça va très bien maa ngi sant bu baax. macha allah li muy li muy waxtaanee ñun ñëpp dinañ ci gis suñu bopp hmm. parce que góor ak jigéen yëpp ci la ñuy wax. waaw tamit de ah. Hmm. mais kon. ah pare mais balaa boobu damay nuyoo di nuyu téléspectateurs yi di leen wax euh, yeewu leen yeewu ngeen bu baax jàkkaarloo ak waa suba teel donc am na ñoo xamante ni aussi ñu ngi ci réseaux sociaux yi nekk ci application bi di ñu béggee bu baax ñu ngi leen di nuyu ak ñi toog seen kër yor seen commande bu leen zappé tout suite. kenn du zappé ndax ñooy bomb néegoo waaw ñoo fi teg tànk toog des suñu yaram te duñ jóg. poids <laughs> bu ëpp man moo fa nekk une chose promis est une chose due. Ouais. Biggie a tenu à sa promesse te suba teel dina tenir à sa promesse merci d'être là. Merci. je rappelle que Biggie est là euh, tous les jours dorénavant euh, pour la seconde manche ndax gis nañ ni moom moom téléspectateur yi cafkaam dañ koy bëgg daal. macha allah Papa nuyu naa la di la dalal. bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu Seydi Makhtar. di nuyu Louisa di nuyu Chérif Aïdara di la nuyu yow di ñuy ñuy setaan di wax yal na yàlla saxal jàmm senegal yal na yàlla saxal jàmm senegal yal na yàlla saxal jàmm Sénégal barke ñëpp am ñàkk bi sore xel yi dal xol yi xol yi ñu tàppe ko ñu tàppe xol yi ñu tàppe xol yi ñu tàppe yi incha allah <laughs> yal na yàlla nangul ñu ñaan nana di la nuyu di la dalal ma euh, fay asma di nuyu ñi ma bokk plateau bi Louisa tey moom ma maanaam moom dañuy nekk copine <laughs> après di ngeen xam di tax ah, bu kenn zappe <laughs> di nuyu sama sama frère bi gi di nuyu Paasan di nuy téléspectateurs yi ñu seetaan di leen wax nii ni bienvenue ci seen matinale préférée suba teel moom fi nga ko waxee foofu la seen matinale préférée en tout cas on vous remercie de votre fidélité via déjà euh, Sen TV di des média waaye nag Subatel mi du démb ngeen adopté ko def ko mu nekk taaw kon macha allah alors euh, ginnaaw bi ma dalaleen ñi nga xamante ne nag ñoom laa bokkal plateau bi dañuy daal di dem rek déglu temps bi lu ñuy dee euh, bu ko defee rek ñu daal di xam naka la ñuy defee ngir gën a mën a profité ci suñu journée ginnaaw lool ñu yebbi leen suñu ay chronique Bonjour et bienvenue.

température Celsius. À midi, 29 degrés et ces températures vont grimper même au courant de l'après-midi où les pics de température vont atteindre 31 degrés Celsius et ce jusqu'à 18 heures. 27 degrés de température Celsius à partir à partir de Les heures d'ensoleillement seront de 11 heures. Les températures minimales vont atteindre 20 degrés de température Celsius et les maxima de 31 degrés Celsius dans la capitale. Et par rapport à la face de la Lune, c'est un mardi qui correspond à la Lune gibbeuse décroissante. Nous aurons un ciel serein ce matin et même durant l'après-midi. Nous vous souhaitons donc de passer une excellente journée en compagnie de la météo et nous vous donnons rendez-vous demain matin. jaajëf ci météo bi ci noonu nag la ñuy jublu rek ci li nga xamante ni mooy actualité en compagnie de Pape Assane Seck mi ngi bind rek fu ñu fekk bi ngi bind macha allah actu réew mi def ko ñor te askan wi ñor ko kon ci noonu lañ koy retrouver tout de suite rek dans sa rubrique. alors Pa Assane troisième mandat une invalidation à coup sûr. Euh, waaw invalidation <clears throat> loolu la tribune bind tey euh, quand on parle d'invalidation dafay jëm ci xel dafa am fu muy dem avant élection deux mille dix neuf yi dafa am fu ñu nekkoon mu nekk mu tuddoon parrainage parrainage dafa amoon lu ko tax a jóg ñi nga xamante ni nekkuñu en adéquation ak euh, loi de la de parrainage bi euh, nekkuñu ci yoon par rapport ak constitution bi donc ñooñu ñëpp dañ leen di wax ni bokk leen ci élection yi wala mu leen ci bokk ñi nga xam ne seen dossier dafa takk suuf et cetera ba ci seen casier li xew mooy lan mooy euh, kii di maître Abdoulaye Tine dafa xam leen ne ci question dafa am benn lu ñu naan le le le couteau à double tranchant mbiru parrainage bi naam dañ ko defoon ci benn fànn am lu ko taxoon jóg ñi nga xamante ni dañ doon dénoncer situation Sénégal bi si jamono dañ doon wax ne politique politicienne moo taxoon parce que am na benn candidat bu fi nekkoon ci avant élection 2019 yi amoon ñenn ñoo xamante ni dañu jàppoon ne daf leen bëggoon écarter loolu jur ñu dox ci projet wu dogal benn loi boo xam ne dafay wax ne ah léegi kat du ñëpp mën a doon candidat dañuy tànn ba juróom ci jamono laata ñuy wax ñan la ñuy tànn ñu dul tànn ki nekkoon premier ministre ci jamono boobu di Mahammed Abdallah Dionne xam la ne du weesu cinq candidats na mu ko waxee mu amee noonu alors il s'est trouvé que ba ci élection yi indi woon na jafe-jafe loolu parenthèse la boo xamante dañ koy rappeler pour mën a situer wu mais li xew ci li maître Abdoulaye Tine xamle ci journal bi La Tribune mooy que le risque mooy bu ñu yeggee ci cappaandaw la en 2024 incha allah au-delà même de l'aspect troisième mandat bi nga xamante ni mënut ne parce que simplement nit bi ci deux mandats la war a yem am na li nga xamante ni mooy li lay permettre nga bokk mooy parrainage boobu ñu organiser woon ci jamono bu boobaa buñ ca tolloo si ci bés kii di président Macky sal daanaka du mën a bokk parce que parrainage bi dina considérer ne waxuma sax ni def na ñaari mandat waaye dina considérer ne moom ci constitution bi amul droit bokk ci élection yi loolu rek la ci gàttal donc ñëpp xamee noonu mooy que tey parrainage boobu ñu voté woon dina nekk lu lu difficile pour président Macky bu ñu yeggee ci cappaandaw la incha allah. donc maanaam parrainage bi moo ko nara a tere mu mën a. bi mu bi mu tegoon moom pour tere ñeneen ñu bokk. waaw parrainage boobu moo ko nar a tere moom mu bokk. Mhm. te logique la. loolu àdduna vraiment man coowal troisième mandat bi gisuma ci benn euh, problème parce que le président Macky bi nga ko posé question à savoir ndax day euh, postuler pour am troisième mandat wala dara il n'a pas répondu quelque chose boo xamante ni tey dafay intriguer bopp nit yi par exemple ñu naan par force day forcer la main pour être président ou autre chose mais ñun on se focalise trop sur loo xamante ni euh, dañu war a jàll ci leneen daal moo gën. mais est-ce que du manque de précision Asma est-ce que yaakaaroon ni ñun sénégalais yi même moom dafa ne day day dem pour troisième mandat. Mhm. ñu est-ce que amuñu waruñu am ful lay toll ñoo moom suñu carte bañ ko voté man man je sais que man des fois je me dis que du ñun ñoo indi problème fu problème amul. moom dafay présenté wu. buñ ko voté c'est simple am na bëgg nañ ko voté la en même ñu voté ko. je pense que je pense que am na am na loo xamante ni Sénégalais effectivement am nañu fulla bi mais xam nga Sénégalais yi amoon fulla daaw ak daawaati jéeg ñoo amaat fulla ren di ko am suba incha te du tere gars yi bu ñu bëggee def dara def ko la preuve élection yi passé ku wax la yàlla ku mu neex na nga wax selon say position hmm. mais ku wax te yàlla rek tax. Hmm. ñun ñi nga xamante ni bokkoon nañ ci ñi bëggoon président Macky di ko dooleel ci jamono contre Abdoulaye Wade parce que dañu jàppoon ne dañ ko teg injustice injustice boobu ñu doon xeex moom lañ doon xeex sur le cas de Karim Wade sur le cas de Ababacar Sall sur le cas ñi nga xamante ni dañ leen di noot parce que simplement dañ leen di xeex ci cadran boobu président Macky Sall organisé dafa organiser ay élections nekk juge nekk parti ci ça la vérité ci ci ci amul amul loo xam ne amul lu ñuy wax moo am mooy que président bi dafa nekk juge et parti ministre am de l'intérieur toog ci télé bi ñëpp di ko dégg mu jàkkaarloog Pape Alé Niang bi ne ko man dinaa def lu ma mën pour sama candidat gagner te mooy organiser élection yi après qu'est-ce qui s'est passé primo votant yi ay plein de jeunes yoo xam ne mujjuñu voté ñoo xamante ni jotuñu seen carte d'identité ñoo xamante ni dañ leen coin sur pas mal de choses tous ces aspects là ont fait yi teer malgré loolu ñëpp jàppoon nañu président Macky Sall lu bon bon dina dem deuxième tour après on a vu ce qui s'est passé. il n'y a pas eu de deuxième tour il y a eu de deuxième tour parce que simplement ci gis-gis ak ci jëfin ak taxawaay même bu dee dañ koy weddi li nit ñi gis constaté ko mooy bi ñu nee 58 pour cent Sénégalais yu bëri dañ jombi parce que dañ ne mënul mais taxul ñu yëngatu. maintenant non maintenant ñu yëngatu yëngatu loolu mën nañ ko xool ci paramètres yu bare mais Sénégalais yi dafa am xeex bu ñu xeexoon en 2011. contre mais loolu c'était pour que pas euh, président Wade jugee fii. exactly mais xeex boobu asma dafa metti woon quinze seize dix sept personnes voire même plus ñoo xamante ni xamuñu leen. ñu mm-hmm. ñàkk seen bakken ci lan. d' accord ñu ci sa troisième mandat bi président Abdoulaye Wade bëggoon def mm-hmm. président Abdoulaye Wade doon wax ne nañ ma may ma àggali sama sama euh, mbébét yi. Mm-hmm. pour jeunesse bi la. exactly pour jeunesse bi merci. tey ñu toll ci presque ci état boobu li indi wax bi nag bi gi li mu wax c' est vrai dañu war a jàll ci leen dëgg la nanaa wax na ko mais président de la République moo indi jafe-jafe bi. président de la République départ bu ne je suis à mon dernier mandat. Mhm. parce que daaw loolu la waxoon. Mhm. mais ren bu ñëwee ne duma wax waaw duma wax déet. day indi tiitaange day indi calcul day indi coow te loolu nag moo jur moo jur moo jur pëccëxoo bi biir APR jur benn bokk yaakaar fi mu ne nii ku ne yaa nga xool sa morom menaçant tey jii nii ma tënkal la ko rek pour ñu bañ a guddal mhm. ci wàllu dialogue national boobu nekkoon deuxième point bi daanaka lépp ci dafay tendre vers loolu sans ñu wax ñu ko. Mhm. je donne un exemple ci mbiru dialogue nationale bi les cas de Karim Meïssa Wade ak Khalifa Ababacar sal dafa dikkaat ci affaire bi. mu dikk ci pouvoir bi day wax ne ñooñu daal euh, mbirum amnistie bi dañ leen war a ñii ne dañ leen war a amnistier ñii ne duñ leen amnistier ñii ne dañ leen war a delloo seeni droit simplement. alors delloo seeni i droit simplement mën na dem peut ba ci sax revoir le procès mm -hmm. revoir qu'est-ce qui a été dit ou qu'est-ce fait là-bas mais dans l'ensemble ci dialogue bi fi mu nekk nii ci seen télescopage yi ñuy am ñu ngi dialogue mais jafe-jafe da see am parce que nguur gi dafa am nu mu taxawee contre Khalifa Ababacar Sall Karim Meïssa Wade te loolu nekk malheureusement ci gis-gis attitude bii nga xamante nii le camp du pouvoir moom la mës a am contre ñooñu bu fekkee da ngay woote dialogue woote waxtaan ne da nga bëgg ñu juboo mais dina am concession booy def am looy bàyyi mais nguur bi nekk toujours ci même logique bi kon troisième mandat bi day nekk crainte kon dafa mel ni président Macky Sall moom mu ngi ci benn logique boo xamante ni foofu la war a aboutir ma jox la beneen exemple mooy quand dans le dialogue on est en train de proposer au Sénégalais mhm. via ñi ne si dialogue ba que la ville de Dakar dafa war a am statut particulier statut particulier mooy que le camp du pouvoir le président Macky Sall et son équipe veulent proposer aux Sénégalais, mm. aux Dakarois, à ñiy dégg ñëpp aux gens épris de justice et de démocratie que daal Dakar waratul nekk dëkk boo xamante ni dañuy nommer maire bi dañu koy dañu koy élire dañ ko war a nommer ça dire que le président de la République mooy xool Luisa mu def ko maire Dakar parce que Dakar statut particulier la mm. Dakar est la capitale du Sénégal dakaar mm. Dakar a le taux le plus tôt, fort taux de densité dans ce pays-là. dakaar Dakar a ses habitants ses réalités nga ne dakaar yéen daal yéen mbokk ngeen Sénégal mais seen statut particulier mooy waral mais statut particulier boobu est-ce que dafa tere par exemple dëkk bu mel ni Touba ñu dindi fa vote ñu ngi fay voté mm-hmm. kon statut particulier bi dafa am nu ñu ko war a déggee ci benn anam fànn sur le plan religion wala religiosité am na contexte bu waral sens boobu mais sur le plan bii ñu nekk nii ci hmm. Sénégal nekk ko si Dakar idée bi ñun man maa ngi ko njëkk a déggee ci Cheikh Diallo Cheikh Diallo ñu fàttali ne moo nekkoon euh, le le le le on va dire l'agent conseil en communication et conseil en général spécial de kii nga xamante ni moo doon Karim Meïssa Wade si jamono. ca jamonoy annoncé yi et cetera au temps du pouvoir de Wade Cheikh Diallo ñu ngi kaa nuyu bu baax moom moo wax ci émission ñu déglu ko rajo RFM mu ne moom dafay xalaat loolu que loolu war na mën a nekk ba mu ko waxee li ma njëkka a wax man sama xel mooy ah la piscette dañuy file benn manche ñu bàyyi ci xel on nous prépare et c'est ça qui n'est pas sérieux Sénégal tolluwul fu ñu koy rétrogradé ba ñuy war a toog li nga xamante ne Alassane Ouattara réussir na ko à Abidjan mhm. mooy mooy di nommer le maire d'Abidjan mu mel ni daal dafa am benn logique boo xamante ni les pays francophones dañ leen ci teg ñoom par rapport à potentiellement des gens yu nga xamante ni ëllëg mën nañu amee nguur gi peut-être bañ a d'accord ci politique boobu vis-à-vis de la France Asma est-ce que ñun Sénégal dañoo dañoo nekk ay jaam wala ay nit yoo xamante ni bëgguñu dara ba lépp dañu ko war a continuellement continuellement di ñu ci tënk di ñu ci tënk ba ñun suñu doxalin suñu biir léegi war a mën a nekk rapport de dominant ak dominé parce que mbiru maire de Dakar te loolu mën na indi coow lu rëy Sénégal maire de Dakar du ku nuy nommé population Dakar ñoo naan asma la ñu bëgg a fal suñu maire ñu def ko indi loolu mooy toujours cet éternel combat contre Khalifa Ababacar Sall je moi je me pose la question est-ce qu'il y aurait je n'ose pas l'imaginer mais je pose la question est-ce qu'il y un fait bu waral le semblant assez haineux dafay mel ni haine c'est-à-dire benn obsession parce que lan Dakar c'est cinquante milliards de budget jëm kaw wala cinquante cinq Dakar c'est potentiellement sur le plan électoral dafa am doole donc forcément nguur bi bëggatul di nekk moom nguur di am beneen maire bu dul ku bokk si moom donc mm. il lui faut quelqu'un ku bokk si moom waaw président Macky Sall yaa ngi sa dernier mandat mm-hmm. yow loolu waru nekk sa obsession warul nekk sa affaire keneen peut-être ku bees mun na ñëw wax lool ñu ne ah kii kat dafa bëgg a toog mais yow miy dem. kon da nga nar a toog. ça pose problème justement nañ ko bàyyi ak askan wi ndaxte askan wi mooy élire président. Ah. Euh,